ak ziyaar yi ñoo ngi ko waroon njëkkee ci sunu papa sunu sëriñ sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine moom bi nga xam ni moo fi toogal xalifa di sunu turandoo sëriñ Cheikh Ahmadou Tidiane Sy waaye bu ko tegee ci loxol imam maanaam jaar nañ ci yoon bi ah di am mbégte lool ci bis bi ndax yàlla def na teewoon nañ ko fi heure bi daaw muy première édition bi mu am succès lool ren tamit mu amaat ñu indiwaat ko muy deuxième édition bi yàlla def ñu ko fekke woon daaw ah am na ñu ci woote mais ñu bëri tey ñëw nañu ca ci qualité kon ñu ciy sant yàlla di ci ndokkeel imam Maodo Sow bi nga xam ni moom la Serigne Mansour si mu nga xam ni yal na yàlla yokk leeram te kaas ñu ci barkeem moom la jëloon ca ba muy dund dénk ko daara ji macha allah ku fi ñëw xam ni nit ku am taxawaay la boroom xam-xam la nit ku teey la nit ku dal la nit ku xam doxalin la man lu may gëcc daara ji dama fii ñëw yu baree bëri kuy laaj xalaat la tamit loolu il faut ñu témoigner ko kon ñu koy sant du ko gërëm di ko ñaanal yàlla lii nga xam ni dañ ko yan yan bu du diis parce que ko ko yan du yan kenn muy diis mais taxawaay lu mu taxaw rek na ko xeeb ndax dañ fi bàyyi ay moromam bàyyi ñu ko ëpp xam-xam bàyyi ñu ko njëkk ci daara bi dénk ko daara ji kon cër la cër nag du aaj du du at moo koy moo koy attan mais responsabilité ak jagle kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla di ko manifester en tout cas suñu disponibilité ci li nga xam ni ñoo ko bokk parce que wax na ko sànq yàlla def na ma nekk député député gi tamit bu ma koy nekk fii ci daara ji laa nekk ba nekk député ba ma ko nekk léegi fii ci daara wala ñaari député yi nga xam ni dëkkuñu dakaar amuñu fa pant rek ci laa bokk ci daara lay xëyee fa lay fanaan du ma sëriñ daara nag tëralu ma dër waaye su may mag su may rak su may wëy yëpp ci loolu ñu gëm kon daara ñor na ba ciy sant yàlla parce que sunu mission bi mandat bi dama doon wax dafa am projet de loi bu ñu porté suñu demee suñu mandat ba mu jeex ca amuñu ci solution man jàpp naa ni dama échec ci mandat boobu ndax euh, Serigne Mbaye Thiam di ministre de l'éducation nationale première fois mu ñëw session budgétaire man bi ma jëlee kàddu dama ko ni man dama bokk ci ñi nga xam ni samay doom dama jël option ñu jàng alxuraan ba pare lu ciy tegu tegu ci ca loolu sénégal yu bëri bokk nañu ak man option boobu léegi nag duñu nangu parce que dañu jël option boobu ëllëg lépp lu état di joxe rek ñoom duñu ci mën a jot man ko loolu du ñu ko nangu man ren da ngay doog ñëw te ministère bi njëkkalu say loxo moo tax ma may la ba déwén mais jàppal ni déwén bu ñu xoolee sa budget gisuñu ci li nga xam ni moo jëm ci daara mooy dimbali daara man dinaa ko voté contre man a ku diina ñor ku lislaam ñor muy position boo xam ni moom laa am nekkoon position radicale bokk ko aussi ak ay député bi yàlla defee session bu jeex moom ci boppam mu xool député yi xool ñu jëloon position yooyu mu woo leen ci bureau génne ay document génne li ñuy wax loi cadre bi nga xam ni ci régime Abdoulaye Wade la nekkoon wan ñu ko ni ko ni wan ñu aussi ñoom taxawaay yi nga xam ni fas yéene nañu ko am ci daar yi loolu c'était en 2013 2013 ba 2016 ñoo ngi liggéey ci wàllu daara sëriñ Moustapha doo moo koy gërëm ak maître coranique yi parce que mbir bu fekkee ni dañ lay liggéeyal tubaab yi dañuy wax tout ce qui pour toi sans toi et contre toi maanaam bu nit ñëwee ni dama lay liggéeyal ca lam lay liggéeyal boolewu la ci jàppal ni lam lay liggéeyal du pour yow moo tax ñoom aussi projet loi bi lu muy am am njariñ ñoom ba bu amee ay lënt-lënt dañoo taxaw ni ànduñu ci ba mu andi fii coow lu bëree bëree bëri ci Sénégal man yàlla def na ànd naag ministre bi wër Sénégal dem nañu Médina Gounass dem Médina Niassène dem Léona Niassène dem Touba. ñëw Tivaouane dem Ndiassane dem ci Layeen yi dem ci famille omérienne pour waxtaan ak ñoom ci projet bi par exemple parce que président Macky Sall bu ñu liggéeyee ba foog ni pare nañu ba yóbbul ko ko daf ko laaj ndax kilifa diine yi ci senegal gis nañu projet bi waxtaan nañ ci ak ñoom mënu ko déedéet sëriñ daara yi ak sëriñ lañ ci waxtaanal mënu leen fii Sénégal la lépp lu ñuy def ci alxuraan ci daara ci diine te ñoom yéeguñu ci waxuñu seen xalaat ànduñu ci. loolu man président du ma ci du ma ko du ma ko doxal kon jëlaat leen projet bi ngeen yóbbu ko ci ñoom ñu def tour boobu ñëwaat mais malgré ça moom ay réticence mais man woote naa fii ci daara Serigne Maodo Sow joxe ñu togg añ yendu fi ma woo Serigne daara yi nekk département yëpp pour waxtaan ñoom ci projet boobu xamal leen ni njariñu daara la parce que ñun mënuñoo xeex daara mënuñoo xeex alxuraan mënul nekk. keroog sunu daje boobu xawoon na xawoon na tàng mais biñ ciy jógee ñu bëri en tout cas amoon nañu beneen gis-gis par rapport ak gis-gis bi ñu njëkkoon a am mais ñuy sant yàlla ci matul ñetti semaine daje nañu Saly sëriñ Moustapha Lo ànd ak délégation fédération islamique du Sénégal sëriñ Maodo Fall mi ngi fa woon Bachir Ngom ma ak képp koo xam ni daara ñor na la ci Sénégal ak côté ba nga ci nekkee dara dañu nañu waxtaan ci projet de loi boobu ba d'accord mu ma ni tey projet de loi boobu mën na dem assemblée nationale pour léegi état du Sénégal maanaam commencer dugal loxoom de manière pérenne comme ni muy dugalee loxo ci école française yi ci daara yi nga xam ni conforme nañu loolu nag bu ñu ko waxee mooy dafa ñoom dafa am beneen façon daara boo xam ne dañu ko indi daara boo xam ne xale bi day boole ñaar yi comme li paquet bi li muy defi ci daara Maodo Sow du ko def ci daara Oustaz Diop fële ci Njaxate Njaasaan dañ ko gën a yokk ba nga xam ni léegi sa euh, ndongol yi dina mokkal alxuraan jàng xam-xam mais aussi ka jàngee ci école française bi du ko ëppale benn compétence de base lépp loo xam ne ndongol yi dina ko jàng ci école française ba ki dekk ci daara ji dina ko boole jàng alxuraan ak jàng xam-xamam loolu je crois que c'est une révolution ñu ñaan sëriñ daara yëpp ñu andi ci ca ñaan ci yàlla mottali loolu ah loolu nag vraiment lañu ñu amoon ci li leen wax di leen ñaanal yàlla yàlla yokk leen jàmm yokk ci daara ji jàmm yokku fi barke daara ji dina am barke ndax këñ ko tuddee xale yi fi nekk yàlla ubbi seeni i dënn ba ëllëg ñu nekk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw lislaam nekk ay citoyen modèle wa ma zalika àlallahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Fall directeur Daara Xale Amar Fall di membre ci comité d'organisation bi comme commission culturelle. bi liñ ci mën a jàng lu bari la mais mën nañ koo tënk rek ci ay ay tomb euh, bi ci jëkk mooy boo doon seet euh, histoire l'islam ci Sénégal mën nañ wax ni. une des particularités marquantes de l'histoire de Sénégal l'histoire de Sénégal mooy daa mooy daara dafa dafa bi muy ñëw fii dafa ànd ak daara kon nag l'islam ni ak ni mu tollu ci réew mi ak pourcentage bi ni mu ni mu élevé naan ñi naan quatre-vingt-quinze pour cent ñi naan juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett lu mu ci mën a xew rek lu élevé la kon lislaam jooju li nga xamante ni bi euh, moom la àndal wala sax moo ko fi indi moo ko gunge moo ko indi moo ko dalal moo ko wesaare moo ko yaatal moo ko sàmm ba lislaamu senegal tey euh, mel ni je loolu lu jar di toog la di waxtaane di ko seet di ko càmbar ndax man gëm naa ni loolu rek moo wuutale tey lislaamu senegal ak bu Mali ak bu Gambie ak bu Mauritanie même ak bi arabu Arabie Saoudite même ba nga xamante ni bii fa la fa la lislaam bi jóg waaw kon loolu man sama gis-gis lu jar toog du waxtaane la bi loolu amee du ñu yem ci du ñu yem ci euh, théorie kese par exemple tey boo xoolee ñi fi yaatal lislaam bi yépp ñu tudde leen ay kër diine te bu ñu nee kër yi diine nañ jàpp ne am na ay këru diine yu bari yoo xamante ni bii kenn déggatu leen ngir dañoo enclavé ngir amatuñu ñu taxawu seen liggéey yooya mais ñoo ñooñu ñëpp ba ci ñi gën a siiw ñu leen di tutte boo nee këri diine yi xel dem ci ñoom ñëpp ay produits daara lañ ci daara lañ jànge ci daara lañ leen euh, yare ci daara lañ defare ba nekk ay produits daara liggéey bu rëy bi ñu liggéey yooyu yëpp produit yu daara la ñu mën cee jël exemple tey Serigne Mansour si bi nga xamante ni bii daara ji dafa nekk continuité daaraam ja nga xamante ni bii moom la sampoon Serigne Mansour boo ko nattee ci euh, xam-xam macha allah soo ko nattee ci nangoo liggéey macha allah soo ko fàggee soo ko soo ko nattee ci faggu àdduna faggu goo xamante ni bi lépp da koy wesaarewaat ci njaboot yooyu yëpp boo ko ci xoolee da ngay xam ni kii produit daara la soo ko nattee ci nangoo jaamu yàlla da nga ko fay jàpp soo ko nattee ci euh, mën a jàng bind loo xamante ni bi dafay firndeel ni kii kat ci borom xam-xam yi la bokk fi gars yi jaar la jaar yooyu yëpp euh, da nga koy gis ci daara mën daal su ma doon delloo foofu laay delloo solo si nga xamante ni bii bis bu mel nii am na ko ñu def ko ci daara fii àdduna toll léegi ci yëngu-yëngu terrorisme jafeñ-jafeñ yooyu yëpp ba léegi senegal di ci musalandi sunu borom di ci musalandi senegal te ñu ngi séntu mu nekk musul goo xamante ni bii yàlla nañ yàlla defal tawfiix ba yàlla bu ñu yàq li fi mag ñi def yàlla bu ñu yàq yàlla bu ñu yàq daara parce que l'islam boo xam dañ koy fore ci ngeen baal ma daal ci ay conférence wala ay tànt wala ay mbedd wala ay borom bolog wala ay ruq loolu moom moo tas réewu naar yi fu l'islam tas loolu moo ko tas mais l'islam boo xamante ni bi mag mu yàlla mu jàng ñu yar ko defar ko mu ragal yàlla bëggul àdduna xëcciwul àdduna dafa gëm ni moo dontu alaaj Malick moo donn sëñ Touba moo doon Cheikh Alhaji Omar moo donn yonent bi toog di wesaare l'islam je crois que ko l'islam boobu du nekk jamais ak l'islam boo xamante ni bii dañ koy foraatu ci ay mbedd wala dañ koy foraatu ci ay route wala ñu koy foraatu ci ay tele ngeen baal ma wala ñu koy foraatu ci ay rajo. waaw jafe-jafe daara am wax naa la ko léegi daara daara bi muy ñëw. bi société sénégalaise xamee ja jamono yooyu fi nga xamante ni bii fi la ko daara féete booba la société sénégalaise taxaw intégré daara daara yi am ay baay daara am ay yaay daara sëriñ daara bi tam mu am mu am mu am mu objectif ni jàngale ak yar moo ko tax a jóg maanaam bëgg-bëgg yi dafa daje woon ba booba sëriñ daara bi amuloon problème di liggéey. buñ ko waree daggal euh, dañ koy daggal taggal tool buñ ko waree may soxna dañ koy may soxna jàppale ko daara yi am ay baay daara ak yaay daara di ko jàppale bañ ko seetaan jamono dema dema dem ba léegi sëriñ daara yi seen bopp tam la yàlla xam doy na ñu bari ci ñoom amatuñu ay initiative nit ñi tam bàyyeeku jàpp seen loxo ci seetaan daara bañ ko jàppale nañ ko doon jàppale je crois que loolu Euh, pacte moral boobu bu ñu ci dellu siwaatee rek lépp dina régler après nag ñu door a séntu apport état du door a ñëw kii wax na ko sànq lépp lu ñu lay defal te yow miñ koy defal boole wuñ la ci xamal ni loolu du am benn du am benn il faut sëñ daara yi jël ay initiative ni xam ne moo El Hadj Malick la ñu doon sëñ Touba lañ doon Cheikh Omar la ñu doon te kenn du ñoom ñu am ay initiative am ay xalaat am na yoo xamante ni bii tey xoola tey ñun sëriñ daara yi mbubb yuñ sol même ki dama koy boole tey sax ci sëriñ daara yi ndax doomi daara bàyyam boroom xam-xam bu mag la woon fii Sénégal jàngal ñu bari xoola mbubb yi ñuy sol tey xoola portable bi ma yor bi keneen yor mais loolu naka noonu tam modernité bi lépp loo xamante ni bii du yàq daara dañoo war a taxaw intégré ko ci daara ubbeeku am ay xalaat concerté wu pour affaire bi ubbiku mu avancé di développé parce que lépp lu ñu yeesalul rek ci yàqu la jëm lépp lu ñu yéesalul ak lu mën a doon même diine ji dañ koy yeesal mais buñ bàyyee noonu rek donte sax yeesal diine am na ay du ni jëmmi diine ji la ñuy yeesal mais accompagnant diine yu bëree bëri ba dañ ko war a dañ ko war a yeesal kon il faut nañ Sénégal nañ yeesalaat seen gis-gis ci daal nañ yéesalaat seen euh, regard ci daara sëriñ daara bi xoolaat boppam société sénégalaise xoolaat boppam état bi xoolaat boppam xam ni daara amuñu lu ko gën fépp foo dem képp koo jëflanteel mu marqué la am ay jikko yu la neex ci moom soo ko toppee rek am na am na am na am na am na am na am na am na fu ko daara toppee moo xam ca ndijaay jala wala ca baay bala wala ca yaay jala wala ca maam jala am na fu ko daara topp loo xamante ni moo ko topp ba euh, injecté ko mbaax googu nga xamante ni bii tey moom la la yéeme kon nag loolu dañ ko war a fonk bu baax a baax a baax a baax daal mais jafe-jafe ñi moom am bari man man lii laa gis ni moo ko mënee sëriñ daara nañ am ay initiative pour progrès am ci daara yi changement am ci daara yi nit ñi tam nañ xam ne daara nekkul loo xam ni dañ koy bàyyi ak sëriñ daara yi di seetaan dañ cee war a dugal seen loxo dañoo war a mobiliser wu jàpp ci bu defee état bi nga xamante ni bii moo war a encadrer initiative yëpp lépp sax moom la waroon moo war a mottali moo war a dolli mu ñëw te loolu vraiment am na ay jéego yu am solo yoo xam ni honorable xam naa dina ci dina ci ñëw ci kanam.